salaamaaleykum mbokk internet ñu ngi leen nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar leen joxaat seen wàccuwaay bu wërwër di ñaan Sénégal yal na yàgg daw seen feebar tëdd si hôpital si kër yal na suñu borom fëgg seen bopp rawatina ñu caabi féetee ginnaaw yal na suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàq ko in ba fi mu rek maa leen di bëggee bu baax a baax di leen ziar tey ñu ñëw benn bras set un grand champion muy armé yàgg na ku ne fi ñu toll dem na ko ba jeexal ku ne deseetoo dara si ñoom ñaar ñëpp tey ñëw seet si armée armée nuyu naa la aouzu billah bismillah inna waliyallah aouzu billahi mina sheytaan rajim laa xawla wala xuwata illa billahi al aliyyil azim idi maa ngi lay fay di nuyu waa école de lutte benn baraag bi yëpp écrit bi yëpp di ko commencé suñu mag taala alaaj jire ak suma rak yi fi nekk yëpp suñu kër si mel ni bébé Tyson fay Faye Elimane suma gaa yi ma fi nekkal yëpp suma naataangoo mbër yi di ñaanal suma yaay yàlla na suufu tubaay oyof ci kawam di ñaanal aussi suñu yaay ji fi jóge muy yaay Bulldozer di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla na na yàlla suuf oyof ci kawam ak mboolem jullit ak ñëpp ñu fa fekk ak képp ku leen fa fekk si barke Seydina Mohamed di ñaanal suma rakk Bulldozer tamit ci combat bi mu jëm dimanche yàlla na ko yàlla sutural may ko ndam lu seddu guy ci barke Seydina Mohamed naka noon di ko ñaanal Pape Guy gi yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal suma rakk Cargo Jaxaaw di ñaanal benn baraag bi yëpp ñi fi am combat yàlla na leen yàlla sutural may leen ndam si barke Seydina Mohamed di yàlla yàlla ma yàlla may ndam ci kaw mbay guy gi jëm la 5 sa avant jëm la 5 Armé gëj a bëre si làmb soo xoolee suñu jum diggante ak ambulance lan la. non gëjuma bëre daaw saison saison bi saison bi passé bëre naa man bu xalaat waaw sama diggante ak ambulance bëre naa après mooy loolu ma jotaat combat ñu waroon ko bëre yàlla dogal combat bi xawoon na yàqu mais ñu ngi suñu entraînement di waaj la cinq di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu see jàmm ñu am ci ndaw ndam bu rëy di woo waa benn baraag bi yëpp surtout sumay fans ma leen di woo Malika Kër Massar montagne buun xam nga waa yëmbal di nuyu su di ñaanal suma xarit Papa Dia yàlla may ko ndam ci combat bii mu jëm naka noonu di ko ñaanal ñëpp ñëpp suma xarit yëpp yàlla leen yàlla defal jàmm ak ay ndam. combat mag sa combat mbay guy gi ñu jàppoon ko ñu ne armée jekkut moo tax mu daw. non yàlla tere man mbay gu gi mënu maa mënu dawloo ci làmb yàlla dogal na waroon nañoo bëre am yu ci xew ñu war a bëriwaat am yu ci xewaat yàlla yàlla yàlla na yem foofu ñu bëre la cinq ma daan ko jël bu amul benn problème. armée pare na diggante moom mbay guy pour samp jaag waaye yow loolu gay mooy ndax géej am na ndox maa ngi pare bu baax a baax au passage di woo suma gars yi nekk extérieur ku mel ni Mouhamed Gueye suma xarit la mu ngi nekk ba France ma koy woo ci combat di woo suma grand Modou Kane moo Modou kan mu ngi ba euh, itali di woo suma xarit yi nekk extérieur yëpp di leen di woo tamit suma doomu nday suma wóolëre mboose waa di woo gaay gaay gaay gaay yëpp di woo suma grand Mbaye Diallo ñoom Abdourahmane pharmacie kulluhum gaay yi jàppale armée maa ngi leen di woo ci combat bi bu baax a baax a baax baax ndax combat bu ma ñor laa jëm ni duñ woo suma grand Mamadou Diène di woo suma papa Ali Ndiaye Martalia di woo suma fils Moussa combat bi le 5 la waaw di leen ci waat bu baax a baax a baax a baax a baax. yéen ñaar ñëpp ngeen jugee si defet yow nga jugee si defet diggante ak ambulance moom mu jugee si digganteem mag Zarko mu nekk ko combat yërmande si yéen ñaan ñëpp. foofu yërmande amu fa ko jeeku sa moroom na ko def li mu mën dem ñibbi waaw man su may yabuma su may fans sax ba war a am ba am bët bu may xoolee mbay guy gi lu dul ñëw jàpp ko daan ko loolu rek moo ma ñor fi mu toll nii. ñenn si amaa amateur ne mbay gi moo la doole. waaw peut-être mën nañoo gis loolu. mais man li ma am rek moom moo ma doy te moom laa wóolu te ci kàttanu yàlla ak mbaaxam bu la cinquee dinañ xam ko ëpp doole. est-ce que armée pare na pour sampu jaaga diggante moom mbéy ko ku xam xam ne français la. <laughs> bii paa dinaa doon kon américain <laughs> non est-ce que armée pare na lool lool lool kenn waru koo laaj. ci kàttanu yàlla ak mbaaxam mbéy guy gi lu indi dina fekk lu ko fuuf. lu mu indi. dina fi fekk lu ko fuuf. bu indee xeex. ay da koo sañ da koo xalaat. bu indee bëre. bon loolu yëpp loolu yëpp xalaatu ci dara moom lu fay xew man mii la. kon Mbaye def. moom ñëw exposé wu ma def li ma war a def mu dem ñibbi. lu leer laa la wax. moom moom benn genre moobul nga ko bëgg a def. waaye yow wees na loolu di woo tamit suma mbokk bawol bawol yëpp di woo suma paapa Serigne Cheikh Kounta Ndiaye xalifa mbëri di woo waa Silane waa Ngàcc waa. tund Bawol yëpp juróom-ñaari mbër yëpp moom tund mbër yëpp maa ngi leen di woo waa Kër Saali waa Njogo Pen kulluhum waa suma gaa yëpp maa ngi leen woo ci combat bi ñu ñëw jàpp ci di woo waa Mbay la Nduur suma famille papa ñëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen woo ci combat bi di ci woo képp ku képp kuy bëgg arma rek maa ngi lay woo ci sama bis bii la cinq ndax ñor na ma trop. Armé dafa mel ni combat bi da kaa jaral ba tax mu wuti ji wàllu. non yàlla tere kuy dem guerre ànd say mbokk. waaw man fi da ngaa tiit si combat bi tiit te ko fanaanoo ma ko. armée mi ñu daan gis 2011 2012 at armée mi ñu gis ne am na différence. waaw différence mooy màgg nañ ci xel màgg nañ ci xalaat màgg nañ ci doole màgg nañ ci jëmmu yàlla dogal na ni am na yu bëri yuñ manqué woon temps biñ am ni rattrapé nañ lu bëree baree baree baree bëri waaw mën naa ni suñu mbër desoon na lu bëree bëri yàlla mu ngi ñuy suturaal teg nañu ci ay kër yu wóor. ñu am beneen expérience bu bokkul ak bi ñu tegoon ni làmb noonu lay doxee waaw di sant yàlla ci loolu trop trop waaw te lépp lépp lépp la cinq dinañ xam bu soobee yàlla dinañ xam mbër mi lan la indi ak lan la capable ak lan la mënee nee na indi sa xarit mu tër ko nee bu jour ba sa xarit na ñëw. non bu ñu xoolee tër wàllu tër ñu dem foofu rek moom day daanu. moom ñoom ñi mu àndal ñoom foofu ñoom ñi ma dajal yëpp dama leen a daan. loolu nañ bàyyi noonu mu sedd man ak moom ñoo war a bëre. nee moo mujj seen kaw yéen. waaw man it maa mujj seen kaw ñoom. na nan bàyyi nan tegee noonu bu ñu demee foofu day daanu. waaw. bu ñu demee maa ko ëpp lu ma daan foofu fuuf ñoom kuñ ci ñëw tër naa la te te moom taxul may taxul may wax sax moom moo la gën a xam ni. <laughs> moom moo la gën a xam ni missile bi la jël. misil bi misil bi la jël te fum ko fekk dina ko boom. mënu ci dara. Idi ma ne làmba waxul dëgg rek ah. waaye arme ak mbay guy gi bu nu bëree defet moo leen boole. Eh. mbay guy gi ci moom laa gisee mbër moo xamante ni bii nii du mbot du xattar bi du nooju du sukkër bi du wéyale bu la wéyalee boo wéyut mu wéy. bu la bu bu la wéyalee boo wéyut mooy mooy wéy. mbay lan la man ci làmbu mais sëriñ dama bëgg nga rafetal loolu xoolal lenn rek lenn lenn lenn rek lam ci làmbu ji de ah. bawal bawal yi sama mbokk yi sama xarit yi maa ngi leen nuyu ñoom si ak ñoom morse yi yaa man yàpp doole rek lan lan koy jàpp yaa man yàpp doole te saa yu ñëwee ñu lëngu ko yóbbu ah kooku loolu dama bëgg a répété waat ko ah dama ne mbay guy gi du mbot du xattar bi du nooju du sukkër bi du wéyalee ah, su la wéyalee boo wéyut mooy wéy <laughs> lan la mën ci bëre lan la mën ci bëre mbay mënu dara ci bëre la cinq na ñëw daano loolu mooy cëram ci bis bi loolu lañ koy sant est-ce li nga wax ni sa mbër gëm na ko kii yabuma nee naa ko combat bi bu dof dof loo moom mii dama ko benn baraak laa koy génne yóbbu ko Tchad wala Tanzanie Tchad wala Tanzanie moom xam na réservé naa ko billet Tchad ba pare bu ci daanoo ma yóbbu ko tan Tchad dofut xam na li ma ko wax ah, ma ni yàlla na yàlla lafal dimbalinoo di woo autorité benn baraag yëpp nag ñu ñëw jàppale seen doom waa Kër saar xam ni combat bi métti na te kenn ku nekk sa gox ngay tiitaroo li ñuy dem di ko jàppale ne ñoo ñëw def ko ci champion yi ñii bu ñu amoon jàppale ba tey weesu nañ fii parce que gars yi mënuñu leen gënu leen a ñeme entraînement gënu leen a xam yoon bi kon li des manqué mooy jàppale no képp koo xamante ni bonne volonté nga nga ñëw jàpp ci monsieur le maire na ñëw jàpp ci ak autorités yi nekk fii yëpp na ñëw jàppale booy kii euh, armée bu la cinquième mu daan béy guy indi li benn baraag ah yomb na de woo tamit suma xarit Ifra ku nekk gis na li muy ci man di sonn su may combat trop ma ne ko doom yaay tey laa la gën a soxla ndax combat bi combat bu ma ñor la te xam nga ni yow sa combat la di woo aussi suma grand suma lépp nga xam ni yàlla dogal na mu may jàppale te gisante wuñ waaw mu doon nit ku baax a baax a baax a baax waaw su ma waxee rek moom dina xam mais damay jaar ci turam waaw <laughs> di woo aussi suma grand Kéba Kanté dama ni koon combat bi sa combat te tey laa ko gën a confirmer waaw kuy jàppale mbër mi te gisoo ko kon boo ko gisee mu war a gën a neex Kéba combat bi li ma la waxoon rek sa combat la te incha allahu rabbi jóguma ci loolu maa ngi lay woo ci combat bi combat bi la cinq la di ci woo képp kuy bëggee armée képp ku nga xam ni rek am nga cofeel ci armée maa ngi lay woo ci combat bi combat bu ma ñor laa jëm di bëre ku dàq wax ci làmb ji te ci kàttanu yàlla dina jaare noppi téye gémmiñam te xam ne làmb du wax kase làmb jëf la incha allahu rabbi lu bi ah promoteur bi moom wax dëgg yàlla lu ma koy wax dama koy ñaanal yàlla yàlla na làmb ji yegg ci jàmm ak salaam ji ma boo amoon message bu muy lancé ci supporter la lay doon waa di woo samay supporter rek comme ni ma leen xamee woon ci dal fulla fayda ñëw supporter seen mbër ma bëreel leen lu neex dama leen a ameel borde yàlla xam na loolu ma ba doyal lekkuma ba suur ma ba màndi man ndaw laa di borom jom te ci kàttanu yàlla ñoom maa ngi ñoom depuis mbapat la ba arène xam nañ li mbër mi capable ak lim capableul yoon nag du ñàkk ay kii waaw musul naqari ci ñun nag musul naqari ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax yàlla cërale nañu de waaw ñu ci làmb mais tamit ràññee nañ ñu ci làmb. nga daan dem yóbbu ay camion arène nationale kon nooy def. waaw camion yi laa bëgg mu ñëwaat. borom camion yaa ngi nii suma ma taala Talla Diop ah, taala Talla damaa bëgg camion yi génnaat gars yi dañuy réclamer loolu camion yi génnatul ndax sama combat bi passé wallahi alazim fu ma génn booy naan ma armée li ñu dal mosu ñoo dal am nañ bee jënd mais amuñu oto bu leen yóbbu barki alxuraan bu leen yow li ma la wax xam nga ci dara camion yi dafa war a génn Pikine lañ jëm mais du tee camion yi génnati incha allahu rabbi combat yi dinañ bëgg nañ cee def lu doy waar lu doy waar dinañ tuus mu bees bëre bëre bu bees daan daan bu bees lépp day bees ci kàttanu yàlla. mbay guy gi ah di ko di ko wax rek li ma koy yóbbante mooy li ko gaa di wax rek yaa mën yaa ëpp doole nañ bàyyi ba le cinq bu le cinq dinañ xam ku mën ku ëpp doole. Mhm. Talla ziar na. waa Idi ñoo ngi lay fay. naka tey. sant Serigne Touba rek. nga yor xale boo xam ne 2011 la ñëw si làmb at léegi coow coow topp ko diggante mag mbay guy gi. waa diggante mag mbay guy gi xanaa sant ci yàlla rek. di wax mbay mbër la moom mbër la li leen ñaanal yàlla yàlla defal leen jàmm ba la cinq yàlla may ndam armée ndam lu sedd guy am na coow nag ndax làmb moom ci coow la commencé ci lay ci lay jeexee waaye ku ne <laughs> ku wét xam <laughs> yaa ma gën a xam waaxu gileem daal xajul ci pantre quoi franchement te am nañ ci yaakaar am nañ ci njort ndax ku ko xool xam ni état am fi mu toll nii ak état de physique am ak confiance am wax dëgg yàlla am nañ ci yaakaar trop ndax préparé na ko ni ñu ko war a préparé comment bi seen ngeen si ngeen ñëw samp jaal. mbay bu ñëwee indee xeex ñu duma ko bu indee bëre ñu daan ko jël bu rëy. Ah, kon mbay guy gi lan la fay def. mbay guy xanaa ñëw daanu. ñëw daanu ñëw daanu idi day ñëw daanu. Eh? déggoo ma de idi. dégg mu la ka mbay guy idi neel mbay guy gi. dama ko yóbbante. Ah. bu ñëwee na ñëw daanu te ñibbi la cinq incha allah. bu neexee yàlla. ndax dañ ko yónni yàkkamti ko taxawaalu du ko waar. li sëñ fay wax dëgg la de doful jinne jàpp ndax combat bi dañoo soxal benn baraag yëpp nag la ñuy woo ak Malika Kër Massar caaray ñàkk ñàkkorom mbooraak bayax na ñëpp ñëw jàppale seen doom banlieusard ndax làmb fi mu nekk nii foofu la tool te armée ku ko ne armée banlieue la surtout maa nag Jokko bi mu dëkk maa ngi leen di lancé waat message bu baax a baax waa Jokko nan jàppale seen doom tas ka ñoom ñoo ko doon jàppale démb ak barki démb fu mu yegg tey ñoom la nan génn gën koo jàppale ñoo ngi koy jàppale nag mais nañ ko gën a jàppale parce que komba bi dañoo ñor ndax mbay fu mu jugee bawal bawol yi dañuy ànd ak moom te bëgguñu incha allah combat bi benn yoon ñu noyé ci te armée dooleem jokoolo bu wax bu waxtaan jeexee dëgg jot dem na nag ba doon armée nationale loolu kenn wérantewu ko mais jokoolo la kon waa jokkoo ñoom combat bi ñoo ngi leen di wax comme seen combat la nañ génn jàppale xale bi yàlla may ko ndam bu seddu guy waaw. armée mbay gu gi missile da ko dina ko dal di woo tamit suma doom nday jiili jiili jiili di woo suma ñaari jiili c'est là jiili jiili bu jokkoo jiili bu jiili bu Brésil waaw jiili di jàpp suma combat baax a baax Mouhamed ñoom ñëpp kulluhum maa ngi woo suma gars yi nekk extérieur yëpp ñuy jàpp ci combat yi waaw ñu gën a jàpp te xam ni le cinq yàggatul di woo suma doom day njaacaar Cheikh njaacaar <laughs> maa ngi koy woo ci combat bi di woo mafia bi yëpp. kulluhum di leen wax ne waa euh, euh, dëggal fans club bi armée armée yi arméen yi mhm. xel maa ngi ci yéen mais li ma tënk rek buñ ma déggul rek nañ xam ni mu demee waaw yàlla baax na yàggatul la cinq la incha allah rabi nañ waaj rek man maa ngi si li ma nekk incha allahu rabi jaajëf ngeen jëf waay